donc tey li ñu fi dajale euh, ambassade des Émirats arabes unis représenté par euh, monsieur Nema à travers euh, seen partenaire le Croissant Rouge ñoo ñëwoon tey pour def euh, benn action ndimbal dimbale ay nit donc six tonnes ak lu topp nañ euh, joxe tey ci ceeb buñ ko xayma ça fait euh, deux cent cinquante sacs de vingt cinq kilos voilà donc pour euh, ay euh, néew ju doole yoo xamante ne dañoo regroupé en association ci ay kuréel am na ci ñoo xamante ne ay silmaxa lañ am ñoo xamante ne ay daara la am yoo xam ne ay association yoo xamante ne ay veuve lañ donc ñoom ñoo ñoom ñooy bénéficiaire yi donc répartition géographique la boo xamante ne dina laal ay dëkk yu mel ni mbuur fii ci Dakar ak yeneen localité ci Sénégal. Sicap tey joxe na six tonnes ak lu topp mais bu ñu xaymaa euh, depuis weeru koor bi bi mu tàmbalee léegi bii mooy ñetteelu action bi nga xamante ne moom la haute autorité fu pare parrainé donc bu ñu booloo lépp def na fukki ton ak ñaar ci ceeb am na ay euh, litre diwlin yu bëri. Euh, mille deux cent à peu près litres euh, am na ay sept cent kilogrammes euh, de riz mille deux cent également litres bon wax naa ko d'huile voilà ak sucre et sucre également voilà donc c'est tout une action qui a été faite par la haute autorité du WACF boo xamante ne ay occasion la yu ñuy profiter pour vulgariser li nga xamante mooy wax fii ci Sénégal parce que dafa am benn loi bu ko institutionnel bu bu benn loi bu ko formaliser en 2015 mooy la loi sur le waqf ba pare ñu créer la haute autorité du waqf bu démarrer ses activités en 2017. donc deux missions principales nañ ci am benn bi mooy formaliser waqf fii nekk Sénégal on a fait. euh, une étude et un recensement, on a cons euh, constaté qu'il y avait 399 WAF. Bon, c'est sous-estimé. donc euh, notre travail mooy accompagner leen pour la formalisation ba ñu dem ci notaire formaliser seen euh, bien waqf donc loolooy protéger en réalité le vœu du donateur donc beneen liggéey bi mooy liggéey bi nga xamante ne ñi ngi koy def pour le compte de l'État mooy def ay investissement waqf maanaam tabax benn immeuble boo xamante ne dañ koy louer suñ ko louer location bi mooy dem ci ay œuvre am nañ ci benn boo xam ne plateau la suñ ko louer location yi muy générer day dem ci daara moderne yi nga xamante ne éducation nationale construire na ko donc lii mooy njëriñu waqf te on profite de ces occasions la où on fait des donation pour vulgariser également le waqf